asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah, mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñuy déglu te nekk ci Huraasul Iraada yépp ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi nga xam ne itam yéen a ngi ñuy déglu ci Ahlul Bayt TV yëpp ñoo ngi leen di nuyu di ñëwaat ak yéen ci xibaar yi nga xam ne ñooy xibaaru Afrique ah, te xew-xew bi nekk diggante CEDEAO ak Niger ak Mali ak Burkina Faso bala ñoo dugg ak yéen ci diggante Niger ak Mali ak Burkina Faso ak li des ci CEDEAO bi dañ leen di waxal lan moo di CEDEAO CEDEAO fukki réew ak juróom ñoo ko dajaloo woon mbooloo la woon moo xam ne nag ci wàllu économique la taxoon ñu booloo ca xaw ma nag ndax signé woon nañ ci ay bu guerre amee am déet waaye affaire économique bi daal leer na ma mbooloo moom it Niger la woon Nigeria Mali Burkina Faso Sénégal Ghana Côte d'Ivoire Togo Gambia Guinée Guinée-Bissau Libéria Sierra Leone Bénin cap ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy fukki réew ak juróom yoo xam ne àndoon nañu ñu def ECOWAS te moo di CEDEAO ci tënkëb tubaab di ECOWAS ci tënkëb anglais léegi nag lan moo waral Gambie maanaam lan moo waral Mali ak Burkina Faso ak Niger jiyoog ñoom àndandoo doon benn ak Mali ak Burkina Faso ak Niger lan ñoo leen boole ndax ñoom Mali dafa doon soldaar coup d'état jëlam réewam Burkina Faso itam jëlam réewam Mali jàppale ko léegi Niger bëgg a réewam ñaari soldaar yi bëgg ko jàppale ak Guinée walla déet ñii sëlam bëti nit ñi lool la ñuy saxal dañuy wax ne Mali dafa coup d'état mu réussir Burkina Faso coup d'état mu soldaar ya toog kon bu Niger coup de coup d'état narte réussir ñii dinañ ko jàppale te bu ñu bàyyee loolu dana law dem feneen maanaam kon Sénégal mën naa coup d'état mu réussir soldaar yi jël seenam réew Benin def ko Nigéria def ko a ah, ba mujj barde gi dagg nag ñépp foofu ko def te loolu lañuy bañ ñoom daal nee nañu Niger duñ ko may mu jàll ndax Mali def na ko jàll Burkina Faso def na ko jàll bu fekkente ni ñoom boobu gis-gis lañu am gis-gis boobu buñ ko amee kon africain yi nga xam ne ay civil lañu li ñuy xool mooy kon président yi seeni ndomboy tànk lañ bëgg aar waaye yitteelu leen économique réew mi ak ñàkk ak réew mi ak ndóol ak Afrique yitteetu yitteelatu leen seen ak pal la ñuy yittewoo ndax bu ñu xalaatee ne Mali jël nam réewam soldaar yaa ko jël Burkina Faso jël nam réewam soldaar yaa ko jël Niger jël nam réewam soldaar yaa ko jël lan moo tax soldaar yi jël ko soldaar yi li tax ñu jël ko mooy tubaab yi dañoo ñëw di roñ suñu alal di ko yóbbu président civil yi nga xam ne ñoo fi nekk dañoo ànd ci loolu population bi mënuñ ci dara ndax buñ jógee ji dañ koy jima faj ah da ñu dóor leen ay lacrymogène dóor leen ay yet même bu armée bi lànkee ne man duma ci dugg sax ñu dem uti seen i néer yi fay leen xaalis ne wulli leen gars yi ba ñu nooy ñu bàyyi ñu ak sunu jàmm nu nekk suñuy jàmm ñun ñu nekk jaami France ñu bëgg nañ ko def ci force ñun lu France bëgg ñu defal ko ko loolu mooy lii population africain surtout noirs yi loolu lañ gis njiiti nag liñ gis mooy Mali def na ko jàll na Niger euh, Burkina Faso def na ko jàll na Niger def na ko buñ ko bàyyee mu jàll ci Guinée naari ci ba def ko kon fa ñuy mujj mooy Sénégal da koy def Ghana def ko Côte d'Ivoire def ko Togo def ko Gambie def ko Guinée Bissau def ko Guinée Sékou Touré moom def na ko ba noppi Libéria def ko bu Sierra Leone def ko Benin def ko Cap Vert def ko su ko defee léegi sunu mbooloom fukki réew ak juróom yii day nekk réewi soldaar mais loolu amoon na lu gën a gaaw lan moo tax bu ngeen yi aw xeet ba xam ne xeet wi yeewu nañ ràññee nañ xam nañ seen intérêt lu dul seen intérêt ndax Sénégal ndax africain yi ñaari xeet africain ñoo fi ne africain bii dafay wax ne taraanga jàng Europe barsàq mbaa Barcelona dem mbaa dee africain bii mel ni man demuma déewuma fii lay toog teraanga ja nekk Europe fii lañ ko jëlee nañu sakk ko nañ ko sakk te suñu yëf séddoo ko bu ko defee nu am jàmm ñoom ñuy immigré si fii di bale suñuy tëli ak suñuy mbedd waaw ni nga xam ne doomi senegal danaan aka si aka neexoon ma am tubaab bu jigéen takk ko jabar ba mu yóbbu ma Europe ma am alal doomi sénégalais bu jigéen bi naan aka neexoon màggat tubaab jóge France ñëw takk ma ba suñ kër yëkkati ku ma dem France danoo bëgg nu toog ba jàngab France jóge France naan maa ngi dem Sénégal jaayu ji ndax su ma fa amee jëkkër sama néegu nday jóg loolu lañ bëgg waxambaane France di wax ne maa ngi dem Sénégal jaayu ji ndax bu ma fa amee jabar sama néegam ndey ak sama guñug baay jóg loolu loolu maanaam bal bi dañ bëgg a delloo ci ñoom te man naa nekk ndax li ñu li leen di ñee ba di leen fekki ba ku ci ne salaamaaleykum ci dëkk bi di ñu seet sax am nga diine amoo diine jong ak jongo xale bee laa bëgg rek jàllax leen ko ko ndax mu tabax kër gi jàllax leen ko ko tax ñu am passeport jàllax leen ko ko tax ñu dem France loolu dañoo bëgg affaire bi ñu retourné ko maanaam ñu toog ba jàngam tubaab bi di witib sëriñ bu ko ñaanal pour mu am jëkkër sénégalais loolu lañ bëgg ndax teraanga rek moo nit ñi di ko def te teraanga tubaab bi yor bañ di leen ci ñee fii lañ ko jëlee mais lan la ñuy defee bar sax ma Barcelona dañoo war a récupérer ñu alal bépp gouvernement bu samp fii ci Afrique te nanguwul ñoo bàyyi suñu ressource bi ñu yàlla jox ñu mel ni waa Libi gu njëkk ga nga xam ne bala ngaa boo boo masuuree dañ lay dañ lay takkal jabar jëndal la oto tabax kër jox la ko jox la tool door laa bàyyi nga dem te dañ lay boole jox la métier jàngal la métier ba nga mën ko loolu lañ bëgg dañoo bëgg moom suñu bopp tout pour tout court mu jas tàkk dañoo bëgg moom suñu bopp balaa ko tubaab sa duut ñu ko def ndax doo dem ci biir France di dox ba dégg ay tubaab yi làkk ay wolof te boo ñëwee fii da ngay gis wolof yi làkk yi di ko tiitaroo loolu lañ bëgg mu deñ loolu ñu fi bëgg a jëlee suñu gouvernement yi nag di Nigéro woo Mali ma fi nekkoonoo Burkina Faso ma fi dëgg bërki démboo Sénégalo Ganao Côte d'Ivoire o Togo Gambio Guinée Bissau Guinée sax ture bu yàggul woo Njaay Sierra Leone ñoom Libéria Bénin ñoom ñëpp daal li ñu bëgg mooy nan nu bàyyi ci nii li fi nekk du jeex ñëpp xaj na ci waaye nun ginnaaw tubaab bi moo nuy jàppale fal nu duñu nan ko nan ko bàyyee alal ji lu mu ñu jox ñu jël suñu population yi seenu suñu yoon nekku ji ñu bëggee defar sunum réew alal ji gaa yi jóge fii yóbbu ko dakkas ko ca banque ya la ñuy dem lebi ca dikk defar ci réew mi buñ noppee dem suñu yoon réew mi di ko fay te leb googu sax buñ la boy junni téeméer la ñuy def ci réew mi wan juróom-ñeenti téeméer yi mu continué waat ci suñum loos te alal jooje ñuy lebi indi fii ko ko te loolu day mujj ñu faf ñu coloniser waat ci lu dul ay bal te loolu duñ ci d'accord loolu moo war a leer ñoo ñooñu noonu lañ gisee buñ leen bàyyee di leen bàyyi ba yàlla day mujj Afrique yépp nag ay soldats jiite ko noonu lañ gisee waaye nag loolu boolewul Niger ak Burkina ak Mali loolu boolewu leen loolu jiitu na coup d'état yi di am Mali ak Burkina ak Niger ba ñuy signé pacte de défense boobu booba ñetti réew yooyu mel ni réew ab soldat jiituwu ko ci ndax lu nekk dafa am histoire te booy wax xibaar da ngay wax histoire ba nit ñi ubbeeku ci ne ah kon nii la demee ba nga xamee ne song nañ Saddam Hussein maasale ko rabiul arabi yi dikk otaan jóg songu libi France jiite ko rey Kadhafi tas réew ma tey booba jamono africain yi d'accord ci woon waaye amuñu ci woon pexe booba la Niger ak Mali ak Burkina Faso dajaloo ñoom ñetti réew yooyu def seenu pacte ne ginnaaw nag mbir mi nii la demee bu neexee tubaab yi dañuy génne ci réew tubaab dugg ci réew yi nit ñu ñuul ñi dugg ci réew yi jullit ñi di rajaxee di rey ku leen neex fulli ku leen neex fal ku neex di roñ alal ji di yóbbu di sàcc di siif te mu mënu ci dara nun kaay leen def benn pacte boo xam ne kuñ ci song ci cong mu demee nii ñu reyanteekoon ñun ñëpp bu ñuy dee deewandoo bu ñu dund dundandoo ci ngor loolu mooy pacte bi nga xam ne moo dox diggante Niger ak Mali ak Burkina Faso bañ koy def ay président civil ñoo ko doon def xanaa kay ñoom itam njébbalu ga ñu jébbalu ca France te neexul seen population ñàkk ga nekk te population ba neexu leen gàddaay ga gone ya di gàddaay ñii jën yi di leen lekk ñii di dig ci biir géej gi di dee ñii di rawi Europe màggat les fa di dee ba jeex ñu gis ne bu xale yi demee Europe màggat ñi dee ba jeex kon Afrique tas te ginnaaw alal dong lañ fay uti te alal jañuy uti si fi ñun lañ koy jële nañu leen coup d'état suñuy président nangu sunum réew ndegam population bi mënuñ ci dara nan ko defar suñu bopp ndax fi mu nekk nii président su ko armée bi bëggee wàcce te ñoom ñëpp ñu ànd bal du tàkk jàmm dana am waaye population bi bi su bëggee wàcce président te armée àndu ci wala yenn certains généraux yi ànduñu ci wala gendarmerie àndu ci wala police àndu ci wala ner groupement nervi yi ànduñu ci itam reyante lay doon boo xam ne dañuy reyante ba réew mi jax waaye dara du sotti loolu la Mali gis ñu jëlal seen bopp seenam réew soldat yi jël ko loolu moom la Burkina Faso ñu seen bopp seenam réew soldaar yi jël ko loolu moom la Guinée gis ñu seen bopp seenam réew soldaar yi jël ko loolu moom la waa Niger gis jël seenam réew soldaar yi jël ko ndax tey dafa waroon a fekk Niger di jox Nigéria courant ba mu doy ndax moo ko ko ëppalee ndax nigeria pétrole bi mu am di ko utiliser dafa ay machine yi su yuy togg courant ci wàllu gasoil ak pétrole ba mën koo jox ba mën koo jox euh, Niger misère moom moom orage ñoom mu am su su ko exploité bu ko exploité te am te am ay ay centrale nucléaire Afrique noire ba moo daj Niger dana leen jox courant ci centrale nucléaire am yooyu te coupure doo ko mos a dégg te yomb lay def yomb day yomb ba yomb ma yombaan mbay te te duñ ci fekk waaye ma ne danoo dee nag tubaab yi rey nañ ñu ba ñu dee loolu moo tax léegi ah Niger jël nañ seenam réew France ne nag ca bakkan laa ci gar or ba ca Mali ñàkk naa ko pétrole ba ca Mali ñàkk naa ko uranium ba ma fa doon xooj sama xel dootuma ko gas ma ne ci laa yem gën na Burkina Faso woon bu di ko ne ci fële demu yoonam bàyyi ma fi gine gi nga xam ne moo nekkoon sama mbalka ci laa daan xabee ka naa ne ñi ngi këll-këll yi mooy wax nag Niger na da ciy bokk de du mën a nekk Niger moom daa ponkale waaw ah, mën naa maa béyu mbotee comme Guinée mën na maa bàyyi xar mu ndaw comme Burkina Faso mën naa bàyyi kuyum xar comme euh, comme Mali waaye ab xabanab yëkkëb kuy moom duma ko bàyyi ndax Niger moom daa bari bi suuf bari mbelli nii wi nit du ma ko mën a bàyyee noonu loolu mooy secret bi mu des lan Niger nee na ko da nga génn ci nii mbaa nga génn ci naa mbaa ma génn la ni ñuy génnee xaj ci biir jàkka ah léegi naka lay def Nations Unies ngi fi léegi ni sax fële nañ seen par président civil fal nañ président euh, soldat France mënu ca dara ndax souveraineté réew mënu ko ñaaj dem na da nga koy lijjantil sa bopp léegi nag ginnaaw loolu am na te France am na xaalis am na armement day influencé ECOM euh, day influencé euh, CEDEAO mi ne leen wulli leen Niger ba mu ne nii maa leen di jàppale waaye nag jàppale gi yëpp mooy xanaa junniy soldaar ak juróomi téeméer yëpp a jot na nekk nga xam ne mënu leen daal di génn ci saase ñoo fay nekk di jàppale gars waaye pour naawee Europe moom dikk jaar fi dem fa moom yombut ndax amul fenn fu muy jaar fu dul Benin wala mu dem jaari Nigéria waaye mënut a jaar feneen kon ñetti réew yooyu ànd àndandoo wuñu ci kaw ne dañuy coup d'état seen i président not seen i réew déedéet seen i président dañoo àndoon bu yàgg ca bañ a reyee Kadhafi te booba it lu leen jig la seen gàllaaj la woon ñoom président civil ya ànd googee ñu àndoon signé pacte yooyee nag bañ demee ba soldat yi jël ko bëgg koo continuer ñoom xam nañ ne bu ko soldat yi jëlee dina leen arrangé ñu bëgg ne ñoom dañoo àndandoo ci ak terroriste dañoo àndandoo ci ak mbandi bu dee terroriste walla ak bandi mag ña fa jóge te yoroon réew ma tête civile ñooy bandi mag yi ndax ñoo ko bu njëkk te booba soldaar yi si léegi ñu réew loolu dafa bokk ci li ñu war a xam li ci des nag moo di euh, Ahmadou Abdourahman mi nga xam ne ab colonel la te yore kàddu Niger Niger fi ñu toll nii mu ngi tudd Ahmadou Abdourahman wax na ne Niger yi ak Burkina Faso seenu askan ànd nañu doon benn am na ay pays terroriste yoo xam ne dañoo bëgg a yebal fii seeni bandi terroriste ñi di ñu ñaaj suñu doole di ñu wutal ku ñuy jiital ak ku dul jiital ñoo ngi fi toog di leen xaar joxoon nañ ñu ultimatum nee nañ si le six la doon jeex le six jeex na Nigéria yebaloon na fi ndaw waxatuñu ñoom séqatuñu ak ñoom dara ndax dañ ñëw menacé waaw madame madame Cisco bu te sant Tall Sall mu mu koy wax waa Niger dañ koy dégg te man li ma reetaan loo mooy madame Cisco bu yow boo bu ñuy bu ñuy Cisco doo dem ca guerre ba nga yëkkati loxo naan Cisco bu la ñuy ndax ñu dem Cisco bu waaw Cisco bu pourquoi Cisco bu Cisco bu lu jëntiwoo sa réew mi nga xam ne yaa ngi ci guerre gu dégg bëccëg ngay Cisco bu di xeex ci réewum jàmbur ak a neexoon ku déclaré guerre yaa koy jiite ndaw kon guerre sore te doo ko mas a gis kon ñoom la jor rekkee dem guerre waaye ñoom taal sàll yi mën nañoo sus koo buude waaye boo demee sax amul doom ji nekk soldat amu ko amul sax doom ji nekk soldat doom yaa ngi bitim réew di jàng bu ñuy guerre sus koo buubu bomba yi dal it day fa ba passeport diplomatique comme moom niroo naag chinois comme dafa nit ñuy waxee bu demee Chine toog fa bu demee Japon toog fa <laughs> la nag waaye yàlla leen niróolee ku ci xees rek da ngay niroo comme chinois waaye madame Sicko bu daal nee na moom duñ ko xeex Sicko bu waaw léegi nag colonel Ahmad Abdourahman nee na moom ñoo ngi xaar madame ko bu ak terroriste yooyu mu àndal ne dañuy jaar doole ñoo ñuy faral ku leen neex te nun duñ faral bopp ku nu neex ci saase itam lañ daal di faral ku ñuy wax Zeyn Ali Mohammed def ko muy raïsul wuzara maanaam ñoom defuñu ab soldat premier ministre Zeyn Ali Mohamed mi ñu def premier ministre ab si ab si ab ab civil la yaa ngi dégg léegi nag préparé nañ tëj nañ Niger ñoo ngi xaar ngi ñoo ngi toog di xaar gaa yi yi tamit ah li ñu xamul moom mooy Sénégal waxut ne day dem guerre loolu itam ñi joxe xibaar yi war nañ koo xamle Sénégal néewul damay dem guerre yi Niger waxul loolu ndaxam Côte d'Ivoire waxul ne damay dem xeexi Niger ndaxam Nigéria sax waxu ne day dem xeexi Niger xibaar yi ni ko réew yi di joxee noonu nag xibaarkat yi ñoo ko dul joxe noonu senegal li mu wax mooy bu fekkente ni lànk nañ ne dañu génn te CEDEAO gi nga xam ne moom la ñu bokk taxaw daje ne dañuy xeex yi ñoom duñu des ginnaaw danañ jàppale CEDEAO ñu dem xeex yi loolu la wax waaye waxuñu ni ñoom danañ dem xeex ci force déedéet bu CEDEAO wooteb guerre daanu ca dem loolu lañ wax loolu moom la ñu wax bu CEDEAO wooteb guerre daanu ca dem loolu lañu wax léegi nag dëkk bi gën a neex a jaar pour dem ca te ànd ci dem gi moo di Nigéria ndax ñoom dañoo am mille six cent kilomètres seen diggante ak Niger am nañu mille six cent kilomètres seen diggante ak Niger ci frontière foofa moom wax dëgg yàlla patax patax duggu génn yomb na fa ndax daa yaatu yaatu goo xam ne du neex a sàmm waaye bu dul foofu bene moom amu ci ab trottoir bu yaatoo noonu Mali am na ko ci lànk na Nigéria ah, maanaam eh, eh, Algérie am na mille quatre cent nangam kilomètres moom ak moom ak ak Niger ci côté moom it lànk na ah, benn place bu yaatu daal lañ fi am moo di Nigéria gi am mille six cent kilomètres ak benee gi nga xam ne as puqutal la maanaam xam naa senegal moom bu ñuy puqutalu benee la ñuy jaar ñu ci def jaar jaari beneen boor maa ñoom ñëpp ñu dankaloo ji Nigéria ànd ak àndandoo fa nag dal ci ñoom dal ci waa ji ñuy xeex waaye gars yi ñoom nanga dongali ba ne kekk taxaw di xaar lu weñ sax nag naawatul tiim weñ yoo sax naawatul tiim Niger yoo sax amatu fa nee nañ ndax bañ joxe ultimatum ba lañ ne yooyu ko ci naaw ñu tiire la moo tax yooyu sax danoo <laughs> yooyu sax danoo nelaw yi weñ ne nelaw waaw tan yi nelaw nañu rambuta yi sax nelaw nañu moom daal foofu daal ma nga ne yàmba nag doo fa gis dara waaw piccam yàpp mu fa jaar ñu rey na picc waxantuma piccam mbeñ piccam mbeñ moom waxaale su ko waaw piccum yàpp nee nañ dootu fa naa waxantuma piccum mbeñ surtout nag mu doon soldaar te waxuñu ko ne ñëwal ba mu tàggoo bañ bàyyi ko loolu moom militaire nee nañ du ko dañu ko defat ndax bëgguñu ku ku leen ku leen ku leen song ci di leen ku leen bett song leen loolu moo nekk seen diggante ak ak ak ak ak ak ñoom léegi ma ñëw ci réew yi nga xam ne ñoo ñoo war ñoom ñoo joxe seen accord ndax dafa am réew yoo xam ne dañoo joxe seen accord ne ñoom bu ñu leen woowee daañu dem xeex yi am na ay réew yu joxe seen accord réew yooyu Nigéria ci la bokk Nigéria mi ngi am quatorze mille euh, maanaam cent quarante euh, cent quarante trois mille soldats boo boolee soldats yu Nigéria yëpp dana la jox cent quarante trois mille soldats soo jëlee ki nga xam ne moo di eh, Côte d'Ivoire te nee na bu ñuy dem dina dem moom am na vingt sept mille soldats yoo xam ne moo di soldaram complètement bu dee Sénégal am na quatorze mille soldats soldaram yëpp quatorze mille soldats la loolu soo ko boolee da ngay am cent quatre vingt quatre mille soldats maanaam daal cent quatre vingt quatre mille soldats yoo xam ne taxaw nañu ne seen bakkan lañ ci gar moom lañ amagul te yaakaar ndimbalal France ak américains yi beneen nag ndeysaan moom cinq mille soldats doo nga la am waaw cinq mille waaw nun quatorze mille ëppale nañ ko lu bari nag wax dëgg yàlla ndax <laughs> ëppale nañ ko juróom-ñeenti junni euh, nit Eh, beneen moom quinze cinq mille soldats côté la am waaye réew maa noona moo tax Sénégal am na cent quatorze mille soldats waaw cent quatorze mille soldats moom am na ko waaw Abidjan am na vingt vingt sept mille waaw vingt sept mille soldats waaw moom la am léegi nag Nigéria am na eh, cent quarante trois mille soldats eh, ndekete kon Abidjan Sénégal ko ëpp doole ci wàllu soldats vingt sept mille ak cent quatorze mille sore nañu tuuti wax dëgg yàlla ñoo ci gën a bëri ci ay nit waaye ëpp soldaar xaw ma nag loolu lu tax mu demee noonu léegi nag ñoom ñëpp boo leen boolee dañuy nekk cent quatre vingt quatre mille soldats ci réew yu mag ya boo ci yokkee cinq mille bii tamit muy cinq mille bene loolu lañu lañ dajaleegul ànd ak France ñu dem nag ci côté bële nga xam ne ñoom ñoo dongali taxaw di leen xaar côté bële dongali taxaw di leen xaar ñoom Niger lañ nar a songi Mali ne du ci dal Guinée eh, ne ne du ci du ci dal euh, Burkina Faso ne du ci dal léegi soo demee nga xool Niger Niger moom trente-trois mille soldats moom la am trente-trois mille soldats Mali am vingt et un mille soldats Guinée am dix mille soldats Burkina am sept mille soldats léegi boo ko boo leen xoolee soixante onze mille soldats contre cent quatre vingt quatre mille soldats soixante onze mille soldats contre cent quatre vingt quatre mille soldats waaye nag dafa am ñu nekk ci wet gi te waxaguñu te li ñu wax mooy bu guerre bi amee leneen ci dugg d'accord ñu ci Algérie ca ca ca ña taxaw ca frontière ba ne guerre bi du fi amee la fi amoon Libye nit ñi tasaaroo di yenn seen i bagaat du fi amee nit ñaa ngi jaar fii di dugg ci géej gi di dem eh, ndax ay ger ak yu kenn xamul kon nag bu ngeen fi tàllatee beneen guerre ci biir Afrique réew mi dana tas te wax nañ nag dëgg ndax bu guerre bi déclaré bu ñu dóoree Sénégal dóoraat Sénégal moom bar sax ba Barcelone ji kenn dootu ko mën a tee bañ tax boobaa dañ naan gaa yi wuteetuñu xaaj dañoo daw te loolu amul njëriñ loolu la Algérie wax boroom mille quatre cent kilomètres yi digganteem ak Niger nee nañu moom ñun ñëwuñu pour sot si de bokkuñu ci geer bi waaye daal bis bu guerre bi amee fii danañ dugg bu ngeen ko fi defee rek danañ dugg ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg bu ngeen di def guerre bi ñu dugg waaye nag ñoom néewuñu Mali ak ak Burkina ak kee su ngeen xeexee dañ leen jàppale déedéet waaye ñoom dañ ne bu fekkee ni song ngeen leen ñun geer bi lañ d'accord su ngeen leen songee ñun danañ dugg te ñooñu moom bul xam borom un million de personnes yi woon France moom ñooñu ñoom ñoo daqa xadee ay weñ te boobu amuñu woon doole léegi nag doole lañu am loolu lañu wax Tchad moom itam kazaalika naka noonu moom ngi ca côté ba nee moom itam bokkul ci CEDEAO moom ak Algérie ñoo yem waaye bu bokkul ci CEDEAO itam nee na d'accordul ci guerre bi ab mu kenn dafa jaar te bu méttee ba metti baax bu ngeen leen na gañee ah baax na su boobaa di ngeen xam ndax ñu duñ mën a seetaan loolu kooku itam ma nga ca côté booba noona ak yeneen dëkk yi ca def loolu mooy li nga xam ne moom laa bëggoon ne dinaa ko leeral nit ñi pour ñu xam ne Niger ak Mali ak Burkina Faso coup d'état seen président boolewu leen président yooyu bañ fi nekkee dañoo bool too woon ne buñ boolewul suñ doole gars yi def ne ñu ñu def ñu ñu def xadaat yi loola nag moom dafa continuer ndax euh, gouvernement day gouvernement day continuer continuité la ca lañ continuer àndandoo ci kaw ne kii dafa coup d'état président dama koy jàppale déedéet président boobu ñu coup d'état ak moroomam lañ doon jàppalante président Niger boobu ak président Mali ak président Burkina Faso ñoom ñoo signé woon accord ne lii ñu def Kadhafi jékkul jaaduwul te ñun mënuñu ci dara te buñ signé accord de défense tey ak moom buñ ko songee ñu mën caa bokk ndax fi nekk nii boo signé wul accord de défense ak menn réew muy guerre nga dugg ca ah xanaa nga am doole ni Algérie nga xam ne fa nga xam ne faale woo ci dara <laughs> waaye bu fekkee ni am yambar nga ni Sénégal moom boo ca demee dugg te amu leen accord de défense yi yàgg moom problème dina am xaw ma nag CEDEAO dañoo amoon accord de défense wala accord euh, économique lañ amoon bu fekkee amoon nañ accord de défense moom ah, ñu ne dañuy défense président boobu aw lay la ca Nations Unies buñ ko amulee nag ah français ñu yem yónni rek la ñuy mën a wax ndax français bëgg a ñàkk alalam te bëgg te ñu ko seetaan mu ñàkkee ko noonu ñu di ko jàppale loolu bokk na ci li nga xam ne dama noonu danaa xuus tey ba mu xóot ma leeral ko nit ñi ba nit ñi xam ko la ca topp mooy mille soixante mille soixante dix neuf personnes France génneegul na ko ci ressortissants ressortissants ya fa nekk mille soixante dix neuf personnes génne nañ ko fa dawale ji ko France ne leen kaay leen ñibbi ndax da ngeen ma doon liggéeyal fii may roñ uranium ak ñoom seen uranium bi nekkatul luñ mën a roñ kon nag eh, kaay leen ñibbil seen bopp bala ma leen a roñ fekk ngeen doon ay niiw junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti nit France jot na ko roñ yóbbu te ma ngay roñ jeexalagut waaye ma ngay dawale ay askanam américains it nee nañu képp ku fa nekkoon daal te nekkal fa ci sa jëmmi bopp ak say business man ngaa ñibbi ba mu des ñañ fa taajoon ngir suñu diggal rek ndax kat bu daa gi tàkkee buñ bëggee dawalandoo ñëpp du sotti kon nañ ko wàññeendoo ba bés boobu dana xaw a yomb foofu itam fa lañ toll Amérique nag nee na d'accord ci ñu attaqué guerre bi ndax moom xalaat na ne manes naa waxtaan ba juboo am eh, eh, maanaam CEDEAO moom bañ fa demee eh, pour waxtaan ak président ba fa nekk léegi dafa bañ nangu leen a gis ñoom itam ñuy jibbi ne ko waaw a baax na ti ñoo ngi dem song mi moom duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi ëllëg te luñ la wax kañ lañ lay song waaw duñ la ko wax da ngay jëkk rek tuyi tuyi ci départ waaye duñ la wax kañ lañ lay lañ kañ lañ lay song Amérique nag nee na li may ñaan moom ngeen bañ a song man ragal naa ne bu ñu waxtaanee danañ déggoo yebal na fa ndaw ndaw la wax ak ñoom xam nga ah, Amérique moom alal dong lay xëbate lay xëbale nit ñi ak embargo économique waaw moom gànnaay googu la yor waaw bu la xiifalee nga bu la bu la xañee alal nga të mu xiifal la nga të mu xiifal la ba ngay bëgg a dee mu nemmali la fekk loo mën a jóg ba mën a ba mën a daw sax di xeex waaye fi mu nii mi ngi ci man yi nag moom tamit di leen menacé ci su ngeen delloowul nguur gi dinaa leen waaye daal foofu la ñu toll léegi nag ni nga xamee ne noonu la Niger noonu la noonu la Sénégalais yi amee France noonu dak la Niger amee Union soviétique noonu la amee Algérie te daal nañ moytandiku guerre bi daal man daal loolu loolu daal moom ma gënal toog nag ba Afrique xaaj ñaari ŋaal ŋaal yi féete penku ŋaal yi féete sowu tubaab bi fexe ba guerre mondiale am fi te musu fee am loolu moom du fula du fayda président yi seetantal leen bu baax troisième guerre mondiale il faut mu am day am bu leen ko werante ma fekke kook ma dee wutal koo ci yéen waaye troisième guerre dina am ndax nit ñi dañoo juddu màgg am xel jàng bëggatuñ ku leen moom te tubaab bi moom nit ñi lañ bëgg te nit ñi dañ d'accord ci loolu kon troisième guerre mondiale dina am ndax nag day tàkke France ga mu tàkke woon ak Allemagne wala ndax day tàkk ci diggante Ukraine ak Union soviétique wala mu tàkke fii ci biir Afrique ñu gën cee dee tubaab bi nag li ñuy ñaan yàlla mooy troisième guerre mondiale tàkke Afrique ndax su ñuy roñ or beeg pétrole beeg jamaa beeg lépp di yóbbu nga xam ne guerre ba mën nañ koo yaatal juróom fukki at ngir mën a roñ li fi nekk lépp ba buñ ñu bàyyee ko Afrique bàyyi na Afrique neen loolu lañ nar a def ndax bañ ñuy coloniser booba machine yi ñuy gise suuf ak yi ñuy gase suuf ñoom it amuñu woon ci sophistique yi ñu am léegi waaye léegi si bu ñu taalee guerre ci suñu biir Sénégal ne day dem ca guerre ba sabado laa la France di roñ te dootu ko tàggu ndax du ko tal ñu jiim jàmm daal moo gën allahu yata o ila daari salaam wa yahdi man yashaaw ila siraatil mustaqim